ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat ak jàmm seen di Leader TV di wax ni bu leen fàtte abonné tey nekk ñaar fukki fan si weeru janvier si atum ñu ñëw ak yéen si revue de presse revue de presse nag dañ ci njëkki yéen kaay bu groupe Futurs Médias di record moom record nag mu nga fasal sa xatu njëkkee l'international sénégalais bii di Bamba Dieng mu ànd ak Olympique de Marseille ñu nata jàkkaarloo équipe boobee di reen si 16 de finale yi yi nag gannaaw seen première match boobee nga xam ne amoon nañ ci victoire si kaw Côte d'Ivoire ñoom suñu gaynde yi sa ñaareelu journée ba dañu daanu si kanam Ouganda benn bal si dara ñoom suñu gaynde yi nag match bi nga xam ne moo leen dese ñu war si jàkkaarloo RDC Congo bu ñu bëggee jàll sa ñaareelu tour ba ñoom ñu gaynde yi boobule match foog ñu am ci victoire buñ ci amul victoire rek dinañu ñibbi si Dakaaru Njaay jël Jóob ba tey journal bi ñu ngi fay fekk FC Barcelone googee nga xam ne ma ngay continuer di wane doole moom FC Barcelone match bi nga xam ne doon na ko amal démb juróomi bal la dóor si dara mais Real Madrid nag moom remontada la def gannaaw première mi ba nga xam ne moom Real Madrid métti woon na si moom Andrés Villas-Junior yi nag dañu dellu si waa dóor ñaar ñetti yéenekaay bu groupe Futurs Médias dañuy jubali La Turbine La Turbine nag moom mu nga fësal sa xat yu suñu gaynde yooyee nga xam ne ñoo nga sa chan bay amee foofee Algérie ñoom suñu gaynde yi nag journal bi mi ngi fësal di bind naan le Sénégal se met en danger Sénégal gii nag danger la nekk gannaaw match bi nga xam ne dañ si jàkkaarlu RDC Congo boobu la match bu si amul victoire rek dana ñibbi si Dakaaru Njaay jël Jóob ginnaaw biir réew mi dañuy jubal bitim réew ak journal bi ñuy wax Mundo Deportivo moom journal bi nag ma nga fasal sa xët yu njëkk FC Barcelone googee nga xam ne ma ngay continuer di wane boppam sa Europe googee moom FC nag mi ngi doxal gannaaw match bi nga xam ne doon na ko amal démb dugal si juróomi bal si dara moom FC Barcelone gi nag ñooñee nga xam ne match bi nga xam ne doon na amal démb ñoo wane seen bopp ku si mel ne Rafinha ak kooke di Ansu Fati ak kooke di Lewandowski moom ñaari bii dugal ak kooke di Kessié ñoo dugal bii wu FC Barcelone yooyee moom FC Barcelone gi nag mi ngi doxal bu baax a baax tey journal bi ñoo ngi fay fekk Cristiano Ronaldo ak Lionel Messi match amical boobee nga xam ne daja woon nañ ko démb sa Arabie Saoudite kii di Ronaldo nag wane na boppam si boobu la match gannaaw bi nga xam ni kookee di Ronaldo mais kii di Ronaldo kenn demul mu des gannaaw ñaari bi nga xam ne dugal na ko nekk ki nga xam ne mooy jour bi gën a xarañ si boobu la